Cheikh Ali mu ngi nii wàcc pour jàng si kaamil bi ñu def fii. ah ñu ngi ñu Abdou Ba Abdou Ba Abdou Abdou Ba Abdou Abdou Ba tey ma jël ñaari photo tey ma jël ñaari photo rek waaye dama koy jël naa ko yóbbu tey. bi kay bi ñu def sondage bi ñu def sondage yu dib mi ñuy jël daal loolu liggéey damay direct rek raket bi ngay yox lay matin, Mike. Good evening. Kadri mo na si Mbej Mbej. Kadri lagi di. Ini cara kau sembunyi. వద్దు ఓనరు నాలుగు నాలుగు వస్తావు నాలుగు నాలుగు సంగ ఇంకేలా ఇంకటి సార్ ఇంకేలా ఇంకటి సార్ ఇంకేలా కష్టది Olha aqui, para. Vieni, vieni aqui. Giro. grand tête Thank you. nga peese ananas. Muy bien. Sëñ bi. na nga def. maa ngi sant yàlla déet waa dawal. Abdou Ba Abdou Ba. sëñ bi nga xam ne. kaale su ma su ma waa su ma waa su ma. day jàng. ah waaw sëñ bi.

yaa ñëw. yaa ñëw de mënuñ dem de. non moom daal. bu ko fekk ñu mën a ñu déplacé. ngeen bëggee mu rafet ngeen ànd ak seen caméraman yi ma fekk si fekk si leen da ngeen organisé wu leen la wax xam nga yéen ñëpp ngeen dajaloo fii da ngeen bëgg liggéey yéen ñëpp ngeen ko liggéey moo tax ngeen bi taal di maye bu mu war a jaaree ba léegi laa ko bala mu bëgg a léegi dañuy jàng hmm? ñoom ñu ngi jàng góor gi sa doo xaar ñu yor téléphone di filmé ñu ngi arrière fu ñu gis ñu koy def dafa la kooku yow. waaw avancé nañu ñëwal nii. allo. buy ma rek kaa leen. man man xaaral dama jël fa dama yaale. waaw waaw dama jël fa dama waaw gars yi kay moom mooy loolu. yéen a benn distance tuuti rek ngeen ngeen nangoon sax waaw. yéen a benn distance. Thank you.

Why would jëflante la jiite rek waaw vert vert vert photo ko comme ça photo vacciné ko nga envoyé moom moom la décembre du 4 moom boobu la boobu la am noir moom la photo ko moom la dinaa jot maa programme bi nii jàpp si waay jàpp si waay wallaay guddi moom laa bëgg a solle guddi gi moom ay boori vingt heures yi wala vingt moom laa bëgg a sol guddi gi de incha allah dëgg la photo ko ma woon ma gën mu am noir bi am lu mu bi la. ko ñes ñes ñes ñes kon dama toog interview kaay jël interview interview waaw interview pare na interview da ngay toog xaar rambu naa rambu naa ba ñu génn da nga koy da nga koy ñaan rek ñaan ko rek rambu ñu ngi jégalu saa ñu ngi jégalu léegi dañoo sori non

déedéet sëriñ bi moo ñu ko wax. rukk ngir rukk daal rek moo ko jàpp toog mënu toog chargé woo ko xanaa xaaral tuuti xaaral kii pare sëriñ bi dafa jël ba pare ñu dem dégg ngeen gaay pare waaw jégal ba baax na Moustapha Mbaye moo pare waaw c'est bon aja seew waaw kii doomu baay sëtu baay ñu Europe lañ nekk kii sëtu baay te tamit sëtu baay c'est bon président Serigne Ndiogou Ndiogou Serigne Ndiogou Ndiogou sol bu gis nga

charge téléphone. kan mooy lii. waaw. yaa ngi dégg

wala naxuma la nag. ok. mais man jeexal naa. lu ngeen doon jëndee naa ko. may ragal ñu paan loolu moo tax ma wax la ñu. dëgg la ñu ngi ci soxnaale. di tatagal seen rakk seen xarit seen doomi ndey seen doomi baay Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Mouhamadou Hadi ibnu Cheikh Ibrahim di tatagal seen mbokkam daara màggal bés bi daan màggal sa wëllëre yi baay yëpp ñëw ak say wëllëre yow nee na muraakit bi yow de nee seetee sa wàllu ndey seen yaay seen bàjjen seen maam Siise ni ko meññ des ko wóolu woon na ko yaakaaroon ay tam. nee na ku daan bii soog Serigne Adi sa bàyyi la te ku daan wax ak moom ak bàyyi te ko daan jox itam ay secret la daan ko doxloo ay service nee na kër diine yi nekk fii ci Sénégal commencé ko ci Touba dem ci mboolem kër diine yi ku nekk Mawlana Cheikh Ibrahima yónni nga ko sa waay jur sëriñ kon la rente la ne yëpp te rafetal koy dem te def lu baax rek lañ xamee woon sa baay nee na ñoom de ñoom ñoo ci soo woon kër nee na ñu daan ci def seen kër dafay ebal alfa mu ñëw wala ku mën di ebal mu ñëw indi suukar indi indi xaalis te sëriñ bi mu ne ngeen naan ataaya nee na kon loolu wane na ne damay nit ku baax nee na waaye yooyu dee baax nee na dafa am benn soppeeku waaw dañuy yaay kon soo doomi bàyyi yaayam yaay yaay kon soo doomi bàyyi nee na dafa leen teel ko ca

doy loo koy itam di ko loolu yëpp gis nañ yàlla lay ñaanal yàlla nee yàlla la yàlla àggale ba nga bëgg a àgg yàlla la yàlla lafal cat nee dëkk bii moom i xaar ma yàlla ak kenn jaar nga fi nga war a jaar yaa ngi def li nga war bés bii tey dinañ ci fàttaliku Cheikh Al Khalifa Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ndax ku fonkoon bés bi la di ci def di ci wax di ci teew day tamit président Serigne Mboup nee na ñu koy gërëm di ko wax ne ko nee na ñu lay baxel bu dégg bëccëg te yow yaa leen di baxel bu dégg bëccëg nee na dëkk bii di Medina Baye kër boo dugg mën ngaa jàll ca néeg ba ca wàlla yaa ko jëf ci dëkk bi nee na yaa ngi jëf ci dëkk bi loo xam ne koy wéyal nee ñoom nag seen mbokk daara nee bu ñuy sot yow la ñuy sotte nee dafa am benn sëriñ daara dafa ànd ak ay taalibe nee bu romb rek gis benn sëriñ daara nee bu dégg di xeex xeex la sëriñ daara barke ngeen di nekk ci nekk ci weeru koor yàlla di yàlla yàlla yàlla fay seen taalibe yëpp yàlla yàlla fay seen taalibe yëpp ñu ne ñëw feebar bi xamoon na yàlla yëkkati yëkkati ko ci suñu réew te buñ xamati mu balaa balaa bu mel nii yàlla na fi dàq yàlla ko fi yàlla dàq xamal tuddee ko ak juboo jubale kilifa diine yi xalifa yi fi ne yàlla yàlla tale barkeel leen dem barkeel seen Cheikh Baye mi ngi kontaan Cheikh Baye seen bi mi ngi kontaan bu baax di leen doog teel benn yi xam ne suñ ko mënoon ñu ngi ko fii fii fanaan ak yow fii ba wër waaye waaye yaram bi bàyyiwul waaye taalibe yi lépp lu ngeen def nag yal na yàlla rafetal macha allah daaw jéeg daaw jéeg la waaw ndax si sunu ministère defal ci daaw jéeg macha allah tey nga bi chef yére bi sax sa xel sa soppe tey laa ñëw ak ñeneen ak ñeneen ci bés bi tey gën ma koo taalal doonte xam nga wax léegi amul dara lu ci moo tax sama soppeeku sama rakk doy Pape Cheikh la wax mooy Sida Sida Sida Pape Cheikh ak seen ñaari ñoo bokk nekk ñoom ñaar rek la seen yaay ñoo ngi si gaal gi ma gënoon a xam jàppale ma moo tax bés bés bii moom la ci rendre hommage. macha allah moom ak beneen madam ma ko amee bàyyi Salim Cheikh Abdoulaye bu mag muy yor bu gaal bu nekk gannaaw bi ñu ñaari nag yàlla daf ko baaxee. ko yàlla dénk ci mbooloo ak taxawaay. Public Bank 3500 def ci barab salaam ak barke naataam ak nangu ñaan ba ñëpp xam ci fu mu bu nekk ñëw façon naqar bu nekk ñëw façon jaaxle bu nekk ñëw waaye képp ku fi jógee sa tiis ak sa naqar ak sa jaaxle dafa jógee amul kilifa bu autorité yi amul kuy ñëw te képp ku ñëw da ñëw ak jaaxle waaye boo ñëwee bu la waxee sa sa muy yàlla nar na laa jégleen ay mbir ba tax yàlla jàll la ñu ñaan yàlla yàlla loolu yàlla ko yàlla defal ndaxte masi mbàkk bi yàlla jox jox la say càkkute yëpp ak say boole xoolee da nga a mën a damay ñu bëgg a ñëw tamit ma waxal na sax. lu ma bëggoon ak lu ma mën ndax man ko commencé ca sama